FM yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ci ak euh, Mamadou Ndoye baan ak euh, Mamadou Mohamed Ndiaye Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar sama waa ji di la di la bu baax a baax di ziar Ndiaye di ziar euh, waa réew mi waa bitim réew di naan ñëpp jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew def jàmm te nit ñi yàlla ñu yàlla suturaal. waaw waaw yàlla yàlla yokk wërsëg wi te yokk sutura si. waaw waaw di ñaanal ñëpp jàmm rek maa ngi nuyu sama sama sama xarit ba Mouhamed Aïdara ca Sen TV. waaye lii rafet na waay. Ah, ah dañoo xuloo woon. waaye lii rafet na waay Abdou Karim woo ñu. borom makkalima la kay. Mm, lii rafet na juloo bi ah man de dëgg la ci man. ah macha allah jubóo gën nag dëgg la ci man la ma fa wax dëgg la ci man. noonu la maa ngi ziar bu baax a baax. baax la am yow ku baax la ak ku baax la maa ngi leen di ziar. waaw. Ah. sëñ ko ëmb ne ko bi de da koo def te sëñ Abdou moom lu mu def. waaw ah. moo aw aw ma ci aw ma ci lu dul topp ci rek waaye jubóo gi di arrangé wu. arrangé wu mu <laughs> doon daal yéen ñaar ngeen di rek. maa ngi yëngu <laughs> yëngu <laughs> mais après seen bu ngeen defee coalition du jur jàmm ci man. en tout cas ah. Ahmed sama xuloo <laughs> bi daal moom moo sëriñ la mu def rek dafa war. sama grand la Ahmed sama sëriñ la lii daal daa rek. Sénégal xam lu tax daawuma ci wax. Hmm. parce que ñoom ñaar dañoo yem xol. dëgg la ñoom a ñaari xol ñu seen hmm, rek hmm. mais. est-ce que heure du problème heure yaa ngi xalaas fii moom ma nga euh, def euh, émission bi ni mu tuddati. ku ñu boole woon nag benn plateau. Euh, dina moom muy fee def tës si yow ngay xalaat fii est-ce que seen jubóo bi dina yàgg. tës moom doxatul ah. <laughs> tës moom tës moom doxatul. Eh, tës a ngi dox de. tës moom dox ah waaw mais. waaye eh, loolu waaye foofu sama ah, rajo la foofu sama eh, mais ban. ñu ah, ñëwaat copain la léegi waaye tës dox. ban ñu ñëwaat ci accident bi waaw tës a ngi dox ba tey bàyyi ma waaye yow. tës fa laay dem xam naa ni foofu laay xam naa ni. tës est-ce que daa dañ. xam naa fa <laughs> man të të. waaw est-ce que dëgg. ay te ñoom. maa euh, ngi koy ziar euh, ak ak ak ñoom Mohamed ah ñoom euh, beneen grand bi naka la tudd. Euh, Mansour Diop ñoom ah, Mansour Diop ak moom équipe waaw waaw moom ki ñu ko tuddee da cee jëli ji ko ba doy waaw ah, waaw Mansour Diop Mansour Diop ah non Mamadou Mansour Diop moom bu baax bu baax ñoom même même euh, même mami déedéet euh, Ali Mandion mhm, mhm. waaw am na lu rafet lu mu wax ci man mhm. ko mu dox ba yegg si ci man kooku sama yaay kooku miinu ma ko mais nuyul ma ko kooku sama yaay ko ne ko ne ko yàlla na ko yàlla fay ñu lay dégg ñoom classe dañuy déglu ñu lay dégg ñoom classe dañuy déglu <laughs> baan dama dégg ci accident bi leen lu ma neex waaw accident bi nga accidenté du la neex yow waaw doo nit du accident nga ci am la neex mais ci biir accident bi métti na ma mais am na ci lu ma neex ci biir accident bi. waaye maa ndoroon dañoo réew quoi. bu dee li may wax amul dama tàmm ay kaf ak yu ba lu ma wax ñu teg ko ay kaf. billahi wallahi tallahi soow la baan tegoon ci suufi tànkam. waaw bi oto bi këpp. Ndiaye <laughs> damaa sangoo soow mi. <laughs> jaay bi këppoo soow bi daa këpp ay waay bañ oto bi këpp trois fois nit ñi di yuuxu naan wuy sama ndey gaañu nañu koy bànne ay sama soow bi këpp na <laughs> ay waay xanaa soo piir la woon léegi soo bi su kuppoon bi suuf ñu mën a am mais soo bi dama koo sangoo. waaye mel ni Moustapha Gueye mu dugg si. soo piir la woon wala man xam nga soo taxee doo gis sa bopp tontu ma soo piir la woon. waaw dégg <laughs> nga léegi nga way de. <laughs> mooy après bi ma taxee dëkk <laughs> da nga bind bànne. baan baan nañ dem ci xaalis bu nga ni. xaalis bu njëkk lu baax information bi bu ko amee. sama xol dafa sedd guy. lay wax nii. billaahi baat mi ngi ko baat bii di baat ne taxaw na ay sama soom bi këpp na nit ñi tiit mu naan sama soom bi këpp na. boo yaa suuf. sàmpoore di leen xool ba moo war a tuuroo soow. non non tuuru Pape bi mu ñëwee ci kii GV Pape Cheikh de xool yaaw ne ko ndax gis nga baan mu ne ko waaw mu ne ko bi nga ko gisee ndax. découragé woo bi nga man découragé woo waaye ban mosoo mi ko mu ci koom war koo gisaat rek. affaire la de non photo boobu dix millions koy jaay jaay site internet bu ko dugal. si damay ragal site ba palanté wu. ndax ay kii. dana mel ne sa photo ba woon pare de. Ah, waaw waaw booboo bi gën a garaaw. mooy incident diplomatique la jur ci réew. six pièces jaay. nit trois pièces la ñu Ndiaye xam naa ni xam naa ni pour heure bi may ñu ko dañ koy bref rek ñuy ziar sunu sunu jëw di ñee nekk fële ca Masaalikul Jinaan soom ah, tudd nga Masaalikul Jinaan dafa am benn information bu ñu ma ci jox waaw boo xam naa ne mooy taxi déedéet ña ca Masaalikul Jinaan def wuñ ko waaw ña fa diine yóbbu defuñu ko waaye kii nee na waaw dafa demoon di julli àjjuma waaw gaare otom waaw ñëw fekk ñu toj oto ba waaw jël ci ab saagam boo xamante ne ji passeport sénégalais moo ca nekk. Uh-huh. permis de conduire. Uh-huh. carte d'identité badge Sonatel parce que moom Sonatel la nekk benn carte. carte maladie grâce Savoie. Uh-huh. carte IPRES. carte carburant total. Euh, mi ngi ci turu Maam Ndeela John. papier ci turu Maam Ndeela John la nekk. Masalikul Jinaan mhm. fa la ñu dajjee otam toj feere ci buntu bi mhm. néegu yàlla gars yi dañu bàyyi ba ñu ñuy julli dem di jaamut yàlla mhm. am ñeneen na ko sudul noonu moom nag fam gaare otam fa la ko saay leen coronavirus bi ak bi tax na agresseurs yi dañoo xonet jaay dañuy jël suñuy matuwaay léegi non non xam nga kooku la loolu lañ ko fa def joxe na numéro waaw mais mënuñu koo joxe ndax dafa am ay saay-saay yoo xam ne euh, dañuy moo tax képp koo gis nga ko daal waaw fexe la jokkoo ñun ñun dinañu am na ay taxi yu ñu fa sàcc xam naa ni sa kilifa nekk dinañ gën gën yokku yokk sécurité foofu ay taximan yoo xam ni dañuy dañuy dugg di julli foofu ñu suñ génnee du fa fekk seen taxi. Ah. waaj na kenn ki bi mu ñëwee fii ci rajo bi annoncé que ni dañ sàcc taxi am dafa am waaju ko woo waaju ko woo téléphone. déglu li ko waaj wax. Ah, man maa bi. ah ah man man en tout cas man xam nga li ay bàyyi ay waaye moom lu ko suturaale parce que oto bi booy yi sama booy yi ñoo ko ñoo ko jëlee foofu ñoo ko ñoo gaare nii nii. waaw dañ ko bëggoon a dañ ko bëggoon a tas nii dama leen loolu oto bi kenn ko tas. xam fan leen jaar na ba dawal gàttal yoon bi bu nekkee loolu laay parce que damay bañ ñu ñëw fii problème am yooyu yëpp noonu waaw. non problème kay la man kay oto bi dong laaj soxla te yooyu sama problème. xam naa ne wala. ah. maa ne wala bu baax dañ ko jéem a négocier rek jéem a xool nu ko nu ko génnee ci ñun quoi booy booy yi boobu dañoo naan waa ñu ne ñoom trente mille leen leen soxla ñu mën a génne wat ñun de trente mille soxla waaw mën a génne wat waaw ah moo tax loolu bi ma waxee noonu mën a xaaral moo xam li ma wax waaw baax na mais boo waxul fi nga nekk du ma la du ma mën a xam fan nga ne waaw loolu du problème man man kay loolu moom du problème waaw xoolal moom man mën naa ko andi ba si benn station ma gaaree la ko xoolal muy waa station sàngam nga dem jëli ko. Hmm. mën naa ko andi ba si benn station ma gaaree la ko. na waaw. waaw ah, baax na léegi maa koy réglé léegi ñii mooy surtout Jean Ndiaye dina ko yox fii. soo réeree dara ñëw ci rajo bi def annonce joxe sa numéro. Hmm. dafa am ay yàqkat ay ay dóorkat yoo xam ni ñoo lay woo naan la taxi bi maa ko yor nangam da nga ma yónnee temps ma indil la ko trente mille la ko laaj pour mu yóbbul ko taxi bi ci benn station gaareel ko fa yorul taxi yorul dara. te lii nii ñu ngi koy comme ki Ndiaye annoncé léegi su Ndiaye joxewoon numéro bi léegi am ko ko woon ko sax. am na ñoo xam ne suba ba ngoon jot dañuy toog di déglu RFM. Eh, waaw mm-hmm. di xool communiqué yi yàlla bu borom ne digg naa ci neexal na xam nga dañu xam ne kooku moom lim réer di da koo yitteel. Mm-hmm, mm-hmm. ñu ànd ca chaque jour ami ndaw ñëw wax ma ko chaque jour même chose. Ndiaye ban dafa am benn couple boo xam ne fii jëkkër ak jabar yoo xam ne dañoo amoo ndaw si dafa wan noonu noor. Mm-hmm. bi ko ëpp gi ki ko doon bi ko gynéco bi nekk fii xoolee ni ko sa ëmb bi ñetti doom la dafa nar a soo mënoon a dem bitim réew faju ji fa moo gën. ndaw si ginnaaw am na benn sœuram bu nekk États-Unis sœur bi lijjanti koy kayit mu dem. njaay ba mu demee ba am fa ñetti doom ba kenn ka faatu foofa hmm. ak la ca topp ak ñetti doom yi bi ñëwaatee fii ba am juróomi ak seen passeport jeex ñu delluwaat foofu pour renouveler seen passeport ak la ca xew hmm. njaay déglu c'est en 2013 ma ëmbee sama seex yi euh, ay triplette la ñu woon c'était des triplettes waa c'était une grossesse compliquée hôpitalisé fu nekk nag hôpital moom dañ ma fu nekk mais ba léegi ëmb dafa ma doon trop tellement daal waaw léegi après ci lañ ma pro sama sœur bi bu woo ma proposé ma ba ma ñëw foofu ma accouché foofu États-Unis comme ça sama doom yi mën a dund daal parce que j'avais pas eu chance ici daal loolu la ñu wax psychologue bi loolu la ma wax loolu la ma conseillé woon daal léegi ci laa wax ak sama rakk bi sama rakk bi d'accord mu ne amul problème wax ak jëkkëram jëkkëram d'accord après ci lañ ma envoyé benn lettre d'invitation ne ma pour ma ñëw seen mariage nekk seen témoin comme ça su ma demee ma profité waale accouché waale seen lettre d'invitation bi ma yóbbu ko ambassade pour demander visa après ci la ci lañ ma accordé visa bi c'était juste pour trois mois nag ma toog fa euh, je pense euh, une semaine xaw ma une semaine juste après après ci lañ ma yóbbu hôpital ma yóbbu hôpital ñu téye ma hôpital Californie la woon sax deux presque deux mois hôpital bi ñu téye ma foofu ne mënatuma dem fenn parce que sinon sama doom yi je risque de les perdre parce que may c'était à cinq de grossesse quand je partais quand j'ai quitté le Sénégal pour aller aux États-Unis quoi à sept mois nag ci lañ ci lañ kii ci lañ déclenché grossesse parce que mënatuloon dem daal à terme c'était trois enfants avec des donc c'était compliqué ci lañ déclenché finalement génnee xale yi buñ leen génnee c'était à sept mois donc ils étaient très petites prématurées ce sont des c'était des prématurées c'était trois filles ci lañ jël ñu dugal leen ci couveuse denc leen foofu bu ñu amaat un mois de plus le trois la troisième moom dafa dafa souffrir elle moom elle avait une complication daal troisième bi par la suite elle était décédée là-bas pendant huit mois comme moom moo ma retenir woon comme elle était pas bien mais bu fi décédé finalement ma jël ma ne léegi damay ñibbi ak ñaari doom yi Sénégal comme ça seen pap mun leen gis comme la troisième et décédée léegi ci laa décidé ma ñibbi si ak xale yi waa xale yi màgg ba am cinq ans waaw mu doon ñaari jigéen yi niroo sama sœur bi daf ma jàppale woon ci kayit yi ak yëpp on avait fait on avait tout fait pour pour pour régler leur nationalité daal tout était ok daal ak seen passeport ak yëpp lañu amoon léegi ci laa ñibbisi ak ñoom nag léegi bu ñu amee cinq ans seen passeport yi euh, war a jeex mais le sept mai deux mille dix neuf ci lañ ma expliqué na ma demal ministère des affaires étrangères boobu lañ ko renouvelé ma dem foofu pour renouveler passeport yi mu ne ma ça sont des passeports américains kon dañuy dem ambassade euh, des fay ne euh, ambassade États-Unis bu nekk États-Unis fee pour mun na kii pour mun a renouveler passeport yi ma ne ko dañuy dem ambassade de Dakar wala dañuy dem États-Unis mu ne ma dañuy dem États-Unis pour mun a renouveler foofu parce que foofu lañ juddoo seen empreinte ak yëpp daal dañ koy jël dañ koy jël après ñu renouveler passeport kon foofu nga leen di yóbbuwaat ko yóbbu ñu renouveler leen foofu après ci laa woo sama rakk ma expliqué ko li ñu ma wax foofu bu ma ko woowee fekk sama rakk muy États-Unis moom ba léegi ak jëkkër moom mu ne ma ah kon tey indi leen fii man leen est ce que man dinaa leen dinaa mun a ñëw parce que est ce que ñoom dañ ma accordé visa bi c'est difficile mu ne ma waa xale yi je pense qu'il est possible ñoom dina mun a ñëw pour yóbbu xale yi ñu dem foofu renouveler loolu kese loolu kese motif vaut mieux ñu bañ a yàq seen passeport ñu def su renouveler ko parce que su paasee mun na am ñu am ci problème te kon ñu leen di yàqal mu daal di ñu daal di signé benn autorisation bi wane ne xale suñu demee sama rakk ak jëkkëram ñoom ñoo leen ci toppatoo ba ñu renouveler seen passeport après ci papier boobu lañ signé après ci la xale yi dem benn hôtesse après ci la sama sœur bi ñëw ak jëkkëram ñu récupéré xale yi le 4 février 2019. xalaas hmm. ñu teg ci quelques jours. ba xale yi eggee état États-Unis seen maam gaañu maanaam paa bi jur seen yaay. Mm-hmm. donc ce euh, xale boobu tanta seen tante ji ngi leen recevoir fële États-Unis day ñëw ci dëj bi. Mm-hmm. bàyyi fi xale yi. déglu xale Amérique. waaw 2019 sama papa moom mu décédé le 14 mars 2019 donc juste après leur départ. après bu décédé ci la sama sœur bi ñëw elle était obligée de venir au décès de mon papa parce que mënu loon bàyyi noonu ñëw. voilà dafa ñëw bàyyi fa xale yi. waa jëkkër ji américain la tubaab la Adam Alves bu ñëwee fii ci dëkk bi mu bàyyi xale yi foofu te bu mu amee deux semaines après ci la ne day dellu parce que xaal xale yi kese la fa bàyyi mënu ko bàyyi ak jëkkër ji da ko tàggu dafa tàggu woon jëkkër ji ne day ñëw pour dëkk bi après ñëwaat bu may bu muy waaj a dem sax jëkkër ji dafa bañoon il bañoon mu ne du ko fayal kii euh, bien pour mu ñëw léegi sama sœur bi menacé ko ne ko soo ma bàyyiwul ma ñëw man dinaa la accuser yow da a sàcc xale yi loolu la ko wax carrément mu ko waxee loolu mu tiit après ci la ko bàyyi permettre def mu régler papier wam pour sama sœur bi mën a tiite pour jóg nee moom dafa ñëw ba kër ga mu fekk moom rangé na valise ba teg mu ne ko lu xew mu ne ko moom da koy quitté sam kooku de mooy da koy quitté euh, jëkkëram mooy ah, mu ne waaw dem parce que sama rakk sëy na ak jëkkëram euh, je pense six de mariage waaw parce que amuñu doom ñaar jëkkër ji am doom ci la am moom en en Floride ma en Floride avec les filles jëkkër bu mu ko quitté Floride la ko quitté dem Michigan après ci la am problème ci biir kër gi amatuñu woon ndox affaire yooyu mu wax ko jëkkëram laaj ko ni mu koy defee ak yooyu comme jëkkër ji moo doon toppatoo kër gi ak yooyu mu koy laaj léegi ci la jëkkër ji ne ko kon tey nga ñëw ci man fee Michigan bi rek mbëggeel bi rek mu topp ko ak xale yi moom it elle nous a rien dit elle a tout supporté elle nous bu mu ko toppee ci ak xale yi foofu la ko piégé naxanteeg moom naxante ko moom bu mu daanu ci piège mu tëj ko kaso mu mu kii ko daal mu jàpp mu def tout daal police jàpp ko ah. bu mu def euh, bon xaj lañ bokk ñoom ñaar léegi il paraît dafa moom tuuram la léegi su defee dix jours ci moom de def dix jours ci ci ci sama rakk bi. tuuru tuuru jëkkër ji la woon léegi sama sama sama sama rakk jël xaj bi ne da koy delloo xaj bi léegi mu jël xale yi denk leen voisinam ci sama ci jëkkëram léegi bu mu demee il paraît jëkkër ji amoon na ko biir à l'intérieur de la maison mais ko léegi bu mu nekkee ci ci ci biir kër gi euh, copine bi bu nekkee ci biir kër gi ñoom ñu nekk ci biti di waxtaan après ci la copine bi woo police police daal di ñëw police bi mu ñëwee Fatou aussi dafa tiit parce que elle n'avait rien compris parce que mu ngi doon waxante jàmm ak jëkkër ji léegi mu jékki-jékki jëkkër ji changé waxtaan bi mu gisee police mu changé waxtaan bi commencé di yuuxu ci kawam te elle n'avait rien compris après police lan moo xew laajte la ñoom ñaar après moom mu ne non dara xewul man dama ñëwoon delloo ko après police ne ko waaw mun nga dem bu mu demee ba dugg otom dem après police topp ci ginnaawam waaw moom aussi elle n'avait pas compris pourquoi police bi di koy topp alors que ñoom dañ ko leen demal ba mu dem après ñu koy topp nee na moom aussi nanguwul taxaw parce que mu ngi doon xalaat su taxawee ñu jël ko xale yi nan la leen di def te xale yi xamuñu fa kenn moom dese lañ xam léegi su leen suñu ko jàppee moom nu muy def elle ne voulait pas s'arrêter moo tax ñu jël ñu jël xa ñu kii ñu ñu ko après dafa créé accident je pense pas de blessé donc ci lañ ko jël waaw ci lañ ko jël yóbbu ko te lu mu wax dafa waroon ko daan benn fan jëkkëram jël si ko mu jeex mais nee jëkkër ji jël siwu ko au lieu bu jël si nee dafa ñëw foofu nee na di raconter bi n'importe quoi sur elle ñu mun kaa daal prolonger prolonger séjour am foofu à cinq mille dollars caution bu dañ ko dem yéegal ko ba quinze mille dollars te loolu yëpp nee na jëkkër ji la am na lu mu fa wax waaw bu taal courant sama sœur lañ ko tëjoon te le 12 décembre lañ ko tëj léegi ñun xamuñ ci xamuñu woon li xew ba le 26 décembre ci la ci benn message xaritam bu ma ko envoyé xaritam après xarit bi répondre mu ne ma est-ce que tu sais que ta sœur est en prison et que les avec son mari ma ko quoi mu hmm? ne ko quoi. ban li compliqué na de. sœur bi nga xam ne moom la envoyé doomam yi pour ñu wut defaral leen passeport. gis nga li li la ca xew jëkkër xale na ko ba ko tëj bañ tëj ko bañ tëj ko léegi ñaari xale yi mu di seex yi xale ñu jëkk mooy tubaab bi te xale yi na ngeen xam ne ay xale yu jigéen lañu waaw amaguñu sax sept ans te yaay ji leen jur waaw mi ngi Sénégal woowuñu ko wuñu ko ci dara est-ce que déglul yaay mu neñ ko ko xale yi ñu ngi ak ak jëkkëram man ne ko loolu lu mën na demee après jëkkër ji waxuñu dara sam WhatsApp xam na ko ndax def ma si ne ko yow da waxuñu baat mu neñ ko waaw après moom mu répondre mu ne qui vous a dit def mu tëb suñu kaw ñu ne ko ñun xamu ñun waxuñu la kat moo ñu ko mais wax ñu ndax loolu dëgg la wala du dëgg après ci la confirmé mu ne waaw dëgg la bu mu ko kiiwee accusé ko de maltraitance et tout ça avec ses enfants waaw léegi mu ne daal ma ne ko léegi jàppale ma nga indil ma sama doom yi man loolu rek laa lay ñaan di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen jote yow sama rakk bi ah loolu man man tan ma concerne pas si ma ramène mes enfants et c'est tout ma wax ak moom fu lak fayda waaw muy naxanteeg man muy naan non non on je ne peux pas parce que il faut qu'il qu y ait une audience à propos de ta sœur, parce qu'elle, elle a maltraité, elle, elle, elle maltraité les filles, elle a frappé les filles, xale mënuñu ñëw noonu il faut defal ñu leen audience. ma ne ko audience bi kañ la mu ne ma audience bi xamagul peut-être dina jël ay six mois yooyu nangam. tey ñun aussi sama sœur bi aussi bàyyiwuñu mu nekk di may woo tout ça di may di may laaj caution pour ñu jàppale ko fayal ko caution bi comme ça mu mën kaa génne parce ma def defi ñu dajale am parce que caution bi lépp lépp lépp c'était à neuf millions ah waaw mais quand même dajale nañ am sept millions cinq cent ko envoyé am benn sénégalais bu fa nekk à Michigan waaw elle s'appelle Seydi même Seydi Sarr ay kii lañ léegi foofu moo ñu jàppale foofu moo ñu jàppale dem euh, bu ñu bu ko envoyé xaalis bi mu dem wax ak association yi nekk Michigan ñoom ñu yokk xaalis bi ba ba am caution bu ñu bëggoon ni mois d' avril début avril la génn sama sœur bi bon comme liberté provisoire la moom amul droit dem ginnaaw day xeex pour jëlaat yi léegi nag fu mu nekk nii xale yaa ngi ci moom bu léegi te avocat am ba teg waaw mooy day xeex tribunal moo ko jox xale yi waaw juge bi moo ko jox xale yi mooy sama sœur bu mu nekkee prison ci la profité ci yëf yi alors tribunal ba jox ko xale yi mu ne ñun dañoo abandonné xale yi loolu la fa wax parce que même Fatou convoqué convoqué woon nañ ko ci tribunal ba jour jour bu ñu kiiwee ci xale yi moom convoqué woon nañ ko demoon na ba foofu mais bu mu demee kenn gëmul waxam nee ko moom dafa doon maltraité xale yi ñu écarté ko léegi en ce qui nous concerne dafa man sama jëkkër ñun dañoo abandonné xale yi bugguñu leen waa loolu la dem wax juge bi léegi moom mu ne il a eu pitié de nous jëkkër ji de mu ne il a eu a jël xale xale yi noonu te dañu leen abandonné il faut moom mu jël leen en charge après juge bi daal di koy jox garde bi waxuñu ma sax audience am na dañoo def seen audience ba pare après après dama assistance sociale benn message xale yi daal léegi jox nañ leen ko jox nañ ko Adam euh, mooy jëkkëru Fatou léegi jox nañ jox nañ leen ko léegi juge bi jox na leen jox na ko ko léegi soo bëggee jot ci sa doom yi il faut yow nga ñëw soo ñëwee après peut-être juge bi mun na mun na kii mun na defaat beneen audience peut-être mun na am na chance mun na am jox ma xale yi day bañ assistance sociale bi ne ma man dossier bi c'est clos pour moi tëj ko man daal sax si sama bopp pour moi loolu la ma tegal assistance sociale bi de loolu la ma tegal. d'accord léegi li ma bëgg a xam mooy yow en tant que mère de famille ak euh, papay xale yi ay xale yu am euh, cinq ans six ans jàpp sept ans euh, dem États-Unis noonu fi mu nii tëkk tubaab ab américain boo xam ne tubaab la. Ah. est-ce na ci loolu. luus na daal te dalul xel de. dalul xel de mais bon nee nañ dafa yi moom mësul am doom loolu moo tax mu def loolu mais même su su mësul am doom c'est pas une raison doom yaa xale yaa yi toog mun na dem adopté ah mais doomu jàmbur a ah, koo xam euh, doom yoo xam ne dañ leen jur ci biir mariage. wa ñun ñuy laaj ay deux millions cinq cent yépp yëpp opération laa def bu ma amee sama ñaari jigéen yooyu dama amaat ñaari góor de suite mais dañ ma defal opération. xale am. ils ont six ans le am sept la demee. Ah, benn jour am na ko ma dajal mu ne ma ndax yi ngeen di wax nii. Hmm. ci réew mi ci àdduna bi lay xewee ma ne ko chaque jour de. mais bii tamit. lii du gën a garaaw dina bokk ci yoo xamante ne ji. Hmm. wala koo nit a gëm. Hmm. dana jafe te pourtant lu am la de lu am la lu am la man day bon ndaw si nekkoon nit ñi gën a jéem a jàppale Sénégal yi nekk Michigan hmm. euh, ku ku taxaw pour jàppale femme bii ñu boole la ak moom nga jàppale ko ndax mu jot ay doom ay doom yi jigéen lañu man sama xel da cee ñaaw waa ji góor la ba pare yor ñaari xale yoo xam ne ay seex lañu amaguñu sept hmm. ak la ak la xew bitim réew ak seen loi yooyu noonu man daal sama xel da cee ñaaw torop torop torop torop moom amee coow li coow li nag mooma de kan ci moom mii di wax ci naka warutoon na nangu benn yoon. waaw ay doomam di dem réew mu jàmbur. sans moom juste pour ay këyit. te ànd te ànduñu. même bu ñu waree ànd sax ay këyit. Mhm. warut a tax nga jël say doom. xam na yow yaa leen jur. Mhm. sonn ci fu ne nga dem fa pour mën a euh, accoucher ci dal. Mhm. ba pare di leen bàyyi ñuy dem. ay këyit jarul jarul loolu. baan am na fi ay sénégalais yoo xamante ne ji bi ñuy jóge fii. amul lu ñu dajul pour dem bitim réew. Mhm. ba ñu ñibbis ci kees dañ leen yab. Mhm. ñii naan dañ leen fiy suul ndax dañoo corona ñii naan duñ leen fiy suul ndax gis nga àdduna boo ko yàkkamtee rek. Mhm. yàq sa àdduna xale yii Amérique la juddoo. Mm-hmm. bu yàlla nee dañuy doon ay citoyen américain mm-hmm. ñu am fa fuñ ko mën a doonee danañ ko doon ah, mais mm-hmm. jël say doom nekk nañ ko ba pare sax waaye léegi léegi problème bi mooy da doon lijjanti passeport passeport seen passeport bàyyi jëm leen bàyyi ñu dem sans xam nga xam nga gars yi ko dal mën naa dal ku ne moo tax may bañ bu jigéen bu bokkal ndey ak bàyyi moo ne Amérique waaw mu jël doom ji teg ko ci loxo yu wóor ñu yóbbu ko ca rakkam bu jigéen ba. fa mucc fa fa fa muccee ji woon. waaw mais baax loxo yu wóor ci doom mooy ci wetu ndeyam. waaw alors bu tamit ci sërëm bu ko tamit déedéet lii ko lii ko jëkkër ji def sax sër bi mënoon na ko ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. xëy na tubaab bi bëgg doom mën na ko cee dugal. waaw d'accord naa mais dama ne. waaw ay doom passeport yorul avenir am. Njaay doom fu mu mën a nekkee à l'aise sama problème bi heure bi man sama problème laa Njaay fu Njaay en tout cas ñi nekk ñi si gën non mais moo nekk ci àdduna te mën cee jàpp ñu ci 77 150 17 ci woote sama problème ma du ko indi aba yow nga koy fekk lu ndaw laa lay wax sénégalais yi ñaanal Lamine Diack avant ñu ñëw ci Lamine Diack na ko ñaanal lu ndaw laa lay wax ne amin amin amin non seulement mën na ci bañ a jotaat. mais problème bi mooy américains yi soo organisé de sorte que. am na nu ñuy def noo xam ne femme bi dootu tegati tànkam Amérique. dëgg la waaw. parce que moom mi def loolu Amérique la dëkk. xam na loyer nekk en euh, aux États-Unis xam na fa muy jaar ba femme bi dootu ñëwati. foofa te ñoo ko ci ëpp doole. loolu lépp nag li ko yóbbee na ma mm. baal ci kaddu gi. Mm. mooy bëgg a jël avenir du wekk ko ci passeport américain. ah déedéet nag Ndiaye déedéet nag Ndiaye peu importe mais dama ne ah, mais avenir ay doomam la. bu xalaatee nii peut-être noonu la ma def. fu mu juddoo fan la fu mu juddoo Tchad waaw. kàddu lu ça veut bi mu doonee li mu doon ñëpp ko doon damoo. ba ne bu génnee àdduna. non mais nit ki fa nga juddoo waaw. fa nga juddoo amul solo waaw xam nga lu am solo waaw li ngay doon ëllëg mais mbaa xam ngeen ni loo mënti lijjanti pour sa doom juddoo Amérique fu ci nekk yàlla bu dee du juddoo foofu du juddoo foofu waaw lu am rek li yàlla ko tracé ba pare daj pour seeni doom di juddoo bitim réew laa ah, dépend ku ci nekk ak sa doom feebar moom ko yóbbu dinaa kii la judd waaw feebar ko fa yóbbu waaw diay ah, du feebar moo tax non mais warutoon a warutoon a jël euh, jël ay doomam waaw di leen yóbbu pour passeport <laughs>